asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julit yi ci wat nañu di len neyu di len siar di len ñaanal di sakku ci ñaan di sakku ci yeen nu and ñaanal suñu kilifa suñu borom tabarak wa taala gën fe yagal ta te len mu delu wat di sant suñu borom bu baax subhanahu wa taala ci jotaay bi nga xamne sa yu jotaay bu amé ñun ñep dana am lu suñu xel dem te mo di ndigal lu bayiko fam baaxo bayiko jaar fim baaxo jaar jëm ci ci nun nu toog ak sëriñ Mouhamadul Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal te dégguloonu pasteefam ni mu ko baaxoo defee ak nun saa yu jotee ndigal ci xalif général de Mouride sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar kilifa gi nga xam ne moom la nu sunu borom baaxee te nu di ci sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla gën ko fee yàggal dana def nii mu def yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci mbooloo mi ñu xam ne ndigal bàyyi ko na ci xalif de Mouride jaar ci moom mi jëwriñam نعند دلوكا دي باي كوتي سري محمد المنتخى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي تالوي بوكي يب نجي لندي نيو كتو سينبي سين شيخ سيد المختار لندي نيو كتو دي لين جوتلي ndigal lu jóge ci moom alhamdulilahi rabbil alamin ñu gën di ñu di ko gën de gën a sante suñu borom bu baax di ko gën a gën a sante sëriñ bi bu baax ci taxawaay bi ñëpp war nañoo teewlu di di ñaan suñu borom bàyyi ko fi fi mu toll nii baax na fi lool mel na ni mënu fee ñàkk kon ñëpp war nañu di teewlu di ñaan suñu borom ci baaxu Sëriñ Tuubaa mu bàyyi mu bàyyil mu mu bàyyil nu ko fi maanaam bàyyil ko fi sëriñ bi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ci liggéeyam bii ci pàggateefam bu réy bii munu bàyyil gannaaw loolu mu li mu wax ne naa ko jottali nag moo di ay na na na mu ko daa defee rek wax na ne ajjuma jiini ñëw ku ko mën na ko woor Euh, te it na ñëpp euh, maase ci sàkk sarax euh, na ñëpp maase na nañu nañu maase ci mboolem jàkk yi ak jumaa yi jàkka ju ci ne ak jumaa ju ci nañ fa jàng ñetti kaamil loolu la wax loolu la loolu la joxe ndigal dafa wax ne nag jullit ñëpp la ko sant rawatina nañ nag bokki taalibe yi noonu la ko waxee gi yoon Eh, jullit yëpp la ko sant rawatina bokki taalibe rawatina nag bokki taalibe yi kon eh, kon ndigal laa ngoog nañu ci góorgóorlu bu baax te xam ne lépp lu mu seet ba jox nu ca ndigal rek suñu njëriñ rek la suñu njëriñal biir la di suñu njëriñal bitti di suñu njëriñal tey di suñu njëriñal ëllëg kon nan ñëpp nun ñëpp nañ ci maase am ci eh, gën cee fas yéene yeesal suñu pasteef di ci gën a gën a gën a gën a gën a gën a di rafetal sunu yéene eh, lu jiitu loolu lépp di ci gën a fas yéene di gën di yokk sunu itte eh, di gën di yeesal sunu jaayante di gën di yeesal sunu di gën a yeesal sunu déglu ndigal rek lu mu digle rek sunu njëriñ rek la sunu njëriñ sunu njëriñ tey la sunu njëriñ ëllëg la kon nag jërë ngeen jëf loolu rek ñëpp dañ ci maase yi noonu mu ko wax bopp ñun ñëpp la ko xam ñëpp ne nañ fa jàng eh, ak ja jumaa june nañ fa jàng nañ fa jàng ñetti kaamil te ajjuma ji ku ko moon na ko wor te ñëpp it nañ maase ci sàkk sarax eh, buñ buñ ko dajalee nag nañ ko daa defee rek ñu defee ko ni jox ko ñi ko aajowoo muy néew ji doole jërë ngeen jëf lool loolu rek la kon nag ñoo nan ñaan bu baax baax eh, suñu borom dinu dolli suñu tawféex ji nu am ci sëriñ bi te dinu dinu dinu gën a gàtt dimbal te ban mën a euh, nekk ci li nga xam ne mooy suñu wartiif euh, muy jaamu yàlla rek jaamu yàlla rek moo nu fi indi dara indiwuñu fi euh, sëriñ bi itam fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gis ci boroom boroom rek la nekk diggam ak yonent bi kon loolu moom la nu fi bàyyil nu xam ne loolu mooy suñu ndono nan ci gën a gën a waxtu wu nekk nañ ci gën a feddali suñu lépp si di fej di feddali suñu laxasaay di di gën a góorgóorlu suñu kem kàttan ci fas yéene sax ci loolu rek fas yéene sax ci jaamu yàlla ak liggéey sëriñ bi te yàlla tax loolu rek la loolu mooy sunu wartiif mooy sunu ndono moo moo moo mooy suñu njëriñal tey mooy suñu njëriñal ëllëg mooy suñu njëriñal biir mooy suñu njëriñal bitti jërë ngeen jëf nan góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax yàlla noonu suñu borom gën a gàttandoog ndimbalam te dinu dooleel tawfeex sëriñ Tuubaa ci ci ci ci di dooleel tawfeex sëriñ bi ci nun diñu dolli kattan dinu gën a xiir ci boppam di gën a gën a gën a xiir ci sëriñ Tuubaa diñu di di diñu gën a xiir ci ci ci ci ci ci jëf ya ko gënal ak nam ko gënale waaw yal nañ ko yal yal yal nañ ñu ciy gàttandu te te te te te sëriñ bi gàttan gàttanul ci nun ci gàttanul ci boppam wamatal na boppam ba fa ko tax a jóg amiin jërë ngeen jëf ci barke Sëñ Tuubaa kon bokk yi dégg ngeen ndigal la ngoogu bàyyi ko ci kilifa gi jaar ci jawriñam jëm si ci nun ñëpp nu déggandoo ko te am ko ndax jëfe gi rek ci la sunu njariñul tey nekk ak ëllëg muy woor bi suba àjjuma bi daje ci jàkk yi ak jumaa yi ak barabi daara yi jàng ñetti kaamil alxuraan sàkk sarax sarax safa daje ñu defe nañ ko daan defe loolu mooy mooy ndigal li bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci jawriñam jawriñ ji itam nun ñëpp nu maase ñaanal ko li mu ñaanal kilifa gi rek ndax mooy sunu njariñ tey ak ëllëg donc yëpp ngi sant tey ñaan yàlla gën leen fee yàggal te déggloonu seen positif ci barkeb Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu